écrit noo dundee noo dundee ko euh, léegi nga xam ne couvre-feu bi. bi mooy li wax rek xam nga tey mbir bu amee rek euh, ba kilifa bi kilif kilifa bi addu ci ah dañuy nekk ay citoyen rek yu am yar parce que dem Sénégal ñun ñëpp bokkuñu même à l'étranger sax parfois da ngay gis ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay façon yoo xam ne tey parce que tamit da ngay da lay déranger da nga ne Afrique la rek premier jour jour bi nga xam ne. couvre-feu dafa am gars yu bëri yoo xam ne comprendre ñu xamuñu woon sax parce que y a des gens yoo xam ne internet sax du ñu xam sax dëkk buy tàkk sax du ñu xam waaw moo taxoon li ci amoon am ci mais gars yi bu ñu demee ba ci biir comprendre nañ ni li président de la république wax c'est juste tey pour ñàkk population bi mooy toog leen seen kër yombul xale bu ndaw sax laa la wax bu majeuru sax boo ko bëggee toogloo ci kër 24 heures sur 24 sax am na nu muy demee day métti. ñu gis njëkk yi ay xale dëkk Medina génn ngay doom Médina ba pare bi en tant que doom Médina bi nga gisee image yooyu ñooñu di mbubboo turu Médina génn def loo xam ne boo ko li ne xaaj doom Médina yow noo dundee loolu. non Médina moom ñu fa dëkk yëpp dëkkuñu Médina da nga naan kay quartier quartier day dem ba màgg ba nga xam ne tey ku ne dafay jóge dëkk fa mais doomu Médina ak mentalité bi mu war a am ak ak correct li ñu Youssou Ndour way rek moo nekk ci ñun quartier dafay dem ba màgg fu waaye mën a jóge ñëw dëkk fa waaye doomu Médina fis d'un Médinois am na benn comportement boo xam ne bu ñu la gisee nit di ko nga koy def sax bu ñu la xoolee nañ na kii dëkkul Médina li olof di wax rek naan euh, ñëpp mënoo leen dugal ci benn saak mais li am solo ba am solo euh, loolu lu am la mooy dégénéra xam nga dafa dégénéré coow li bari parce que tamit première euh, premier jour bi gars yi comprendre ñu am na ñu bëri yoo xam ne information bi jàllul ci ñoom xam lax gars yi tànc leen xam lax corriger leen. comprendre nga ba nga xam ne looloo indi woon benn benn tiraillement te policiers yi ay per de famille lañ population bi rek moo leen ñor comprendre nga te wax dëgg yàlla bu ñoom bu ñu sañoon coronavirus bi heure yi mi ngi leen di fekk seen caserne yi ñu toog tëdd nelaw wala toog di nekk di waxtaan mais tey ñoom kuy yërëm kuy yërëm laa la wax ñoom nga war a njëkk yërëm parce que kuy yërëm da leen di yërëm parce que amul tax parce que bu coronavirus bi amul woon ñu ngi si caserne yi toog bi ñu ngay dàqante gars yi ña ngay tey parce que tamit population rek ñoo leen di tamit ñuy dawal yërmande ci kaw population bi parce que tamit euh, ñoom ñoo yor suñu kaaraange xam la ñoo yor suñu kaaraange ay nit lañ ay nit lañ comme ñëpp dañuy juum dañuy nekk ci doomu aadama rek tëli rek moo ñu wutee xam mais dañuy juum comme ñun ni ñuy juumee parfois ñu lay yamal fii nga ne doo fi yam ñoomit it dañuy defaat def loo xam ne tey tey ku euh, leen def ay erreur comme ñëpp mais nag lu lépp rek pour Sénégal defaru encore une fois na ci ñëpp euh, jàpp toog suñu kër yi heure bi nga xam ne tey couvre-feu jot ku ci nekk nga toog fa nga nekk booy jóg di dem doxi nanga nga doxi loo xam ne farata moo tax doxi doxi farata mënut a ñàkk parce que mënoo yor ay njaboot sa biir kër tey boo leen di jox lu ñu lekk il faut nga dem lijjanti ko mais bu heure ba jotee ngal na nga yegg sa kër état bi tamit lu mën a jàpp ci population bi rek ci li nga xam ne ndimbal li nga xam ne population bi dañ ko war a jot na ko segg jaaral ko fu mu war a jaar ba pare nag am commission boo xam ne mooy suivre loolu ay normes waaye suivi bi ut ay nit yoo xam ne ñoo koy saytu xool ndax ndimbal li nga xam ne dugal na ko ci biir dëkk bi jox na ni nga ko war a jox mu bara war am rek ay kumba am ndey ak kumba amul ndey affaire politique affaire diwkat ñii ay samay ñii man lañ faral ñii faraluñ ma loolu moo loolu moo yàq Sénégal te loolu yaakaar naa ne président Macky Sall ak effort yi mu def wax dëgg yàlla dana am commi commission pilotage boo xam ne mooy suivre loolu. bu génnee ci loolu kii ban heure ngay tëdd. man de wax dëgg yàlla comme heure bi ngay tëdd laay tëdd <laughs> ah? man damay liggéey guddi gi man damay ne ci cour fa yow ba heure ngay tëdd. xam naa man xanaa ñaari soxna yee ma jaaxal rek Makka ak Médine rek. <laughs> ban heure nga war a ngay tëdd kii nii. maa ne ban heure ci kër gi laay toog nii rek. yàlla xam na nag te nag am temps jotut yor ci nekk ci kurus bi di door samay naafela yu jeex yu bari lool di déglu sama Abdou Aziz mbaay yàlla xam na de loolu moom wax dëgg yàlla moom ma dëmbali sax ci ci ci ci ci ci tëju bi xam la léegi boo nekkee fii Màkka war a dem Médine mbaa doo guddee. non sarul bu sarul woon kay moom moo am fu ma toog mais sarul distance bi sarul euh, Cité Baye Niass la ak ak ak ak ak gox bi mbaaw sarul distance bi sarul mën naa ko dox sax xam la mais yàlla xam bu sori woon moo fu ma toog parce que boo boo boo juumee ba affaire yi fekk la ci yoon bi policiers yi dañuy buuxante policiers yi li gis ni est-ce que est-ce que yaakaar mbër lañ gën a sawar sax jàkkaarloo parce que soxla soxluñu sax genre yi nga xam ne ay poids légers lañ mais poids lourds yi xam naa képp kuñ benn mbër loolu la wax mbëri nee naa affaire yi amee rek dama dugal vocal dekki lama ne sama gars yi dimbali leen ma ngir yàlla mbër yi mbër yi rek la alkaati yi soxla parce que alkaati yi soxlu poids léger parce que poids léger koo ci dóor mu faatu baaxul ci moom mais ñun ñi nga xam ne peut-être sax mën nañ dëkku yenn yat yi ku ci police tànc wala mu tànc benn Balla Gaye wala Gris Bordeaux wala Modou Lo wala benn benn benn benn benn benn benn benn benn bàcc seeraas wala benn benn Siteu non danaan alhamdulilah gars yi di buuxante ci làmb ji laa jekk tey man la fexe leen ba di toog seen kër yi mais li ci am solo rek mooy ah wax dëgg yàlla ñu ciy bay suñu waar ku ci nekk yaa ngi ñu ngi góorgóorlu fexe li président de la république wax population bi ñu koy respecté parce que nag patriote du dara patriote mooy lépp loo xam ne tey état bi da ko teg pour suñu pour suñu bien-être ñu respecté ko. foofu lay potoxloo dugalaat sama beneen laaj ndax ku ne xam ne euh, li ci doyaar mooy cas communautaire yi. ñaari fan yi amuñu ko tey ñu amaat ko yow boo waxee ñu déglu la euh, en tant que citoyen ban message ngay lancé ci sénégalais yi toog bi ñu war koo dëggal te def ko muy seen mbir. mais yi toog toog bi dana métti trop Fadel est que xam nga ne am na ñoo xam balaa ñoo joxe dépense seen kër nii génn seen kër ba dem réglé ji soo ko def orange money wala dara kooku dana métti ci moom de. soo déggee toog bi mooy muy doxi farata parce que giri le fait que euh, cas communautaire di am mooy nit ñi tooguñu. mais doxi farata ñëwaat ba pare utiliser sel antiseptique yi tey raxasu man nga mucc ci ka communautaire yi. si si cas communautaire yi li koy indi rek mooy tey boo xoolee tey euh, rond point Kër Massar non man loolu bu nekkul coronavirus sax état bi war na fa parce que euh, euh, Fadel coronavirus bi war nañ ci jàng lu bari après bu nekkee état bi am na ay vision am na vision laa la wax de waatal naa la ci yàlla après coronavirus bii coronavirus bi état bi war na ci mën a defar lu bare bare bare bare ci dëkk bi parce que quoi qu'on dise rek tey nit ku amul benn activité foo dem wax dëgg yàlla war ngaa reer tëdd Fadel Europe boo nee asalaamaaleykum di am fooy dem nii gars yi dañ lay ko ne la policier dañ lay ko foo jëm xanaa liggéeyoo suba am na ñoo xam ne guddi rek la ñuy dox agression yi ngay dégg Fadel agression yi ngay dégg nii dox ko guddi yi rek la plupart kenn doxu ci farata am na nag ñuy liggéey guddi y a des médecins am na gars xam ne liggéey guddi lañ mais li ëpp ci sénégalais yi laa wax guddi lañu génn te doxewuñu leen lu am fara lu am lu am fulla moo tax état bi war na jël ay mesures après xool nan la mën a xam nga xool nan la war a maanaam loo gis jàngat la rek li am nii tey nii wax dëgg yàlla tey ku yarul woon sax yaru nga par force ñëpp dañuy tëj ci mais nag xale yu jigéen ñi borom soxna yi nag ñoo ci bénéfice ñoo ci a bénéficié wu ñi nga xam ne genre yi nga xam ne dañoo mel ni yow xam ne li yàlla xam doy na dañoo di tàmm di taxawaalu par force dañuy toog kon <laughs> ça veut dire am naa sama benn xarit bu jigéen ne ma Gris maa ngi soog a dund ma ne ko lu tax mu ne ma alaaji séminaire yi mu doon wax réunion minuit yëpp dakk na vingt ma fekk gis ko sama kër kër gi gën a neex xale yi di waxtaan mais loolu bëri na ay bëri na ay soxna yoo xam ne amul su ñoo am seen borom kër dix heures mu toog si mu ñu toog si wetam corona def yàq na mais defar na. mais am na lu mu defar xale yu jigéen ñi am na si borom ñi nga xam ne seen jëkkër yi taxawaar rek lañ mën séminaire. mais loolu la ëppee de. mbëri la ëppee mbëri ma mbëri. parce que kii dama koy seet ak yooyu yaa ma gën a xaye baal yi ngay def sans fanse. mbëri nag bokk na ñoo gën a tegu ci yoon nag. mais bu leen faral d'accord yaay président mais xam nga mbëri de ñi ci réglé bariwul ah. ñi ci ëpp mbëri yee gën a réglé ci Sénégal am na si nag ay bandi am na ci am na am na am na si ay bandi ay Alioune Seye numéro 2 ñoo ñax ay sali ay ay célibataire lañu ay fifty cent ay fraisier xam nga amuñu jabar ay taxawaalu ko ñu mag lañ ay picc ramatu. sëñ Mbacke kenn si. la déggee de sa copain. fan yii yëpp maa koy woo téléphone mënu ma ko jot. ba mu amee jabar ba léegi dafa dof. man man ma yéem mënoo ko woo téléphone ba jot ko mais man ko yow yow yow yow man mu demee nii moom mi nga xam daanul génn am na soxna xam naa dootul génnati dama koy woo téléphone guddeeg bëccëg suba ngoon pour yëgal ko mbir mi Ama Balde maa ngi koy woo fan yii yëpp ñu mel ni ku man daal man dañ ma jaaxal ñaar ñooñu. mais kon est-ce que sa liggéey ci biir mbër yi est-ce que du la empêcher parce que tam bu bu yeexee ba toll benn moment bi ndimbal dootul am njëriñ moment yi ngeen war a jóg moment yi ngeen war a jóg pour génne ko. au plus tard au plus euh, dañ koy dañ koy joxe. waaw boo gisee tey ma ma ma ma ma ma pousse ña ma pousse quelques jour nii c'est juste pour euh, ñëpp gis seen bopp parce que tamit mbër dañu am benn mentalité mooy diw kat daf ma xeeb moo tax yëgaluma wala lii ak lii ak li yooyu laa ci éviter bëgguma ku ma jam te bëgg nañ tey li ñuy teg ci loxo ministre de la santé avec collaboration avec suñu ministre du sport Matar Ba wax dëgg yàlla mooy suñu kilifa mooy suñu xarit mooy suñu mooy mooy mooy mooy suñu lépp xam nga ak ak collaboration wax dëgg yàlla loolu lañu fas yéene tey wax dëgg yàlla.